téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV dalati nag jàmm ci seen télévision buy feeñal lépp lu nëbbu ngeen gis nag ñu ngi fii ci Cambérène 1 en face euh, terrain jamono donc nekk ak sëriñ bi euh, le xalif général des Djinn euh, Thierno Moulay Sow le roi de la médecine traditionnelle ngeen dégg nag noonu ndaw soosu di wax ci suuf ngeen koy gis ci image yi moom nag consultation la ñëw mais ni ngeen koy gisee noonu donc dañ koy filmer parce que moom euh, mën na dugg commencé daanu day faral sax di daanu avant muy dugg ci sëñ bi moo tax nag sëñ bi ne dañ ko filmer xool ba xam naka la wànnante mu jéeg ak ay gëtam donc ngeen gis ko noonu ma ànd seeg sama naataango Moustapha Fall ànd ceeg euh, Ngone Dia soxna Ngone ja ak euh, Sarata Aydara donc ñu nekk fii ci cabinet médical Thierno lay Sow le trois le roi de la médecine traditionnelle ngeen dégg noonu nag ndaw si nga xam ne jinne bi ko jot euh, mu ngi noonu di muy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah donc di nuyu Thierno Moulay Sow ngeen gis mu nekk lu doy war mu safa la ilaha illallah muhammadu rasulullah xale bii moo baax kii moo dem Makka daja macha ni ngeen ko gisee ni ko jinne bi di waxee kii moo dem gis millata Ibrahima ànd ak doomam yu baax ja xale bii moo dem ca Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaare ko ànd ak doom ja millata Ibrahima doomam ju baax ja te ànd ak moom waaw macha allah am bu góor bu baaxam bi fi ànd ak mandarga ba ca ginnaaw kii moo mu ñal borom këram ba yàlla fay ci njabootam kii xamul lu baax kii xamul lu bon xale bee lu bon musta njaaloo mu juddoo te ndeyam ba tey musta njaaloo moo tax ca doomam ju sell ja kooku mooy borom Amérique kooku mooy borom Amérique kooku mooy borom Amérique la rasulullah laa ilaha illallah mulle sow muhammadu rasulullah adna wërngal kàpp ku mel ni mulle sow amul maa ko bëgg piir man duma bëgg nit ku bon man duma bëgg nit ku bon man dama sell man dama sell dama rafet jikko ba ma boppam man dama bëgg nit ku bon duma bëgg nit ku bon aji yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ca millata ibrahima sama doom ji boo baax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw macha allah comme niñ koy gisee nii courant dafa coupé mais gis ngeen ndaw si li nga moo baax kii moo xam lu baax te di ko def mu ñal ba yàlla fekk ci doomam ja laa ilaha illallah kii moo xam lu baax te di ko mu dugg see jàkkaarloo ki nga xam ne mooy xalif général mi ngi révélé ju doy waar di wax baaxu xalif général waa ji li nga xam ne ta mooy baaxu ndaw si macha allah noonu maa ngi lay ziyaare yow nit ku tedd nga <laughs> yaa xam xale bu baax kii li muy def ca kër gi te ànd ak yéene bu rafet la koy defee nag kii du tirkaas kii musta ma mu juddoo ca ndeyam ba léegi musta du lekk lu araam te du wax lu dul dëgg maaleykum salaam wa rahmatullah wa taala wa barakaatu bismillah yow la kan yow la kan yow la kan maaleykum salaam wa rahmatullah bismillah tellement bëgg na wax mais mënul wax bàyyi leen ko mu wax bàyyi leen ko mu wax na wax bàyyi leen ko mu wax yow la kan bàyyi leen ko mu wax na présenté wax moom la kan yow la kan c'est yow la kan na ma moom may waxal lu baax waaye moo ngi taxaw noonu ci bunt bi léegi nag bëgg nañ xam kan la c'est qui yow la kan. man la maamam. yow la maamam nee na moom la maamam. man la maamam maa ko topp. yaa ko topp. waaw. yow lan nga. Ah! man gaynde la. yow gaynde nga. ne nee na moom la maamam moom gaynde la yow yow nit jinne nga wala dëmm nga wala lan nga. dëmm laa man dëmm la. man dëmm laa man na moom dëmm la nee moom la maamam. <laughs> maanaam yow noo maamee ak moom. maa jur yaayam. yaa jur yaayam. waaw maa jur yaayam. nee na moo jur yaayam. c'est grave ah. <laughs> ok xam nga ne nag. Mm, euh, nee na moom la maamam moo jur yaayam dëmm la xam ngeen na nag xam nga loolu laa bëggoon bàyyi mu wax parce que ñun dañuy xam ma dañ lay bàyyi dama bëggoon mu wax parce que du ma tëb ma wax damay bàyyi nit ki wax ma xam boroom xam-xam noonu lay demee doo tëb wax nit ki nangam da ngay bàyyi nit ki waxal boppam nee na moom dëmm la lan moo tax nga topp ko mbokk nga ne xale bii dafa baax barki Dembo Njaay lañ fi jàpp benn dëmm fii xale euh, bii dafa baax awa ah? nee na moom moo gis rasulullah te deewagul léegi yow. lan moo tax topp ko yow yaa jur yaayam. waaw maa jur yaayam. yow noo tudd. Aysatu booba laa tudd. Aysatu booba. waaw yow foo dëkk. maa ngi dëkk Jaabare Yaare. Jaabare Yaare fàll Guinée wala. sama village yaay. Guinée. waaw. fan ci Guinée. Guinée Conakry. nee na Guinée Conakry kii maamam la ay Jaaba euh, Aysatu Jaabare ah. Aysatu Jaabare Yaare. Aysatu Jaabare Yaare. waaw yaa ngi actuellement yaa ngi fan nii actuellement. maa ngi si biir yaramam yaa ngi ci biir yaram bi. waaw lu tax nga topp xale bu jigéen bi lan moo tax nga topp ko. kii dafa baax. dafa baax waaw. waaw kii dafa baax mu le waaw. kii moo xam lu baax te di ko def. kii dafa liggéeyal borom këram ba yàlla fay ko ca doomam ji am mandarga ca ginnaaw. bëggul kenn xam ko. xale bii moo ànd sutura kii moo ànd teggin kii moo ma jàppale dëkk ba village ba ba coow ko ah moom moo la jàppale waaw léegi mu jàppale la lu tax nga dellu topp ko xam nga loolu laa fi doon wax barki dem xanaa bon mu ne xanaa bon rek bon rek waaw léegi na ñëw xëccal leen ma ko mu ñëw mbokk yi yéen a ngi gis yéen a ngi gis dëmm moo ko topp xam nga ne fan yi nag dëmm yaa ngi jafaru bu baax a baax bàyyil bàyyil noonu bàyyi ko. maa la bëgg piir yow. ah dama yaa ma bëgg piir ah dama bi nee na moo ma bëgg piir mbaar bëggoo sama sama kii yàpp yaram bi moo tax nga ma yaa ma bëgg piir est-ce que wóor na ah wóorul kat mu ne mooma bëgg piir man de bëggante wu ma ak dëmm nag dëgg yàlla bëggante wu ma ak dëmm de lu tax yaa ma bëgg piir. la sax yow maa la bëgg. ah bëgg wóor bëgganteeg dëmm kat est-ce que wóor na. la saw tëdd ba guddi kat. mu ñëw seet la wala wala mu mu lekk la. wóorul de illallah man weeru naa. ah man kasaru naa. yow xale bi ma topp. waaw bu ma xamal li yàlla def ci moom du ma ko fowee. lan moo tax nga weeru. ak fan moo tax nga weeru. def lu bon. waaw lanam nga. kii moo ma jur yaayam. yaa jur yaayam. waa yaayam maa ngi fii maa yaayam da ko génnee. toroxal kii fanaan na ci ay mbedd kii dem na village boo xamante ne jigéen yëpp saf ndaw si ban village la cité imbécile yaraax ga fa dekkoon fanaan na ñaari weer ci biti ndax ba fanaan na ñaari ñaari weer liberté 6 ca rond-point ba arrêt 57 fanaan tewte kii day toog ay fan du lekk waaw bii du njaaloo kii ba mu juddoo ndeyam ba léegi musta njaaloo kii du fen kii di wax lu dul dëgg kii dafa baax kii la yàlla wan millata ibrahima mbokk yi teewagul mooy jëfaru xale bu jigéen bi nag du moom mooy wax maamam mooy wax actuellement maamam nag mooy wax mooy jëfaru gis ngeen ne fan yi ñoo ngi capturé dëmm yi bu ba ak jinne yi xam ngeen ne macha allah gis ngeen kooku jóge Murtane ba seede àlla sooli na ko barki Dembo Ndiaye kooku jóge Murtane gis nga fii la ñu capturé dëmmam bi Awa Mbay kii tamit ñoo ngi capturé dëmmam bi moo ngi moo ngi wax léegi nag ñu déglu ko mu mu développé parce que nag Sénégal ñu bëri boo waxee ñu bëri xam nañ luy dëmm mais boo waxee dëmm ñu naan loolu dafa rëy dafa nangam waaye nag Thierno Moule Sow ngi leen di leeral lan mooy dëmm Thierno Moule ngi capturé dëmm di leen jox information ànd ak TMS TV ngeen di déglu kon nag dëmm leeralal ñi ñi ñu dégg waxal. waaw nga ne xale bu jigéen bi. waaw dafa doon fanaan ci mbedd yi. dafa doon fanaan ci mbedd. waaw kii fu ne dem na fa pour faju waaw mënut a wér. lu tax mënut a wér. mënut a wér maa ko lu tax sëriñ yi mënuñu ko faj. ku mel ni mu la sew amul. lu tax nga ne ku mel ni mu la ma jàpp ci àdduna. da nga yaakaaroon kenn du la jàpp. waaw fekk maa ngi lay yeeru. waaw waaw kay. la sew. waaw. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xale bii moo baax xale bi ma topp moo baax. nga ne xale bi moo baax. kii moo liggéeyal borom kanam ba yàlla fay ko doom ji am mandarga bi ca ginnaaw. dégg nee na xale bi moo baax nee naa la dëmm du topp wala kaana du topp ku tekkiwul dara muy dëmm muy jënne képp ku ñu topp nit ku baax la boo nekkee nit ku bon li jëntiwuñ la te li ci gën a bon nag wax naa leen ko fii. ki leen di njëriñ ki kooku la ñuy bëgg a lekk defe naa ne émission boobu mooy daw léegi léegi ni euh, moom la ñu teg nii waxoon naa leen ko nee naa leen dëmm ku koy jëriñ kooku lay soxla am njëriñ ku amul njëriñ li la kuy kuy faj buumu gàccee ku ku leen di jëriñ du ñu bëgg kooku ku ñi maanaam ku ñuy bëgg maanaam euh, ku amul ku tekkiwul dara kooku dañ ko fay bàyyi mais ki ki tekki ki am njëriñ kooku duñ ko bëgg dañ koy bañ dañ koy fexe jë pour jëlee ko fi léegi nag dëmm baa ngi jëfaru na wax dëmm nag nit lay doon dana doon nit dana doon jinne kii nag maamam moo ko topp ki juru yaayam léegi waxal nga expliquer ñu xam waaw waaw kii yàgg naa ko topp de yàgg nga ko topp waa waaw kii damaa def ngelaw da nga def ngelaw waa ba mu bootee doomam bu jigéen bi taaw ba waaw falaa ko duggee fa nga ko duggee waaw taawam bi am na quinze quinze ans quinze ans ren day def examen mhm. ñaata at yaa ngi ko topp doomam yi ñëw barke ñaata at yaa ko topp juróom-ñaari at ci ren nee na juróom-ñaari at ci ren moo ko topp moom léegi lu tax nga topp ko moom lan moo tax dafa am lu tax nga dafa am koo yoreel bor wala lan lan moo tax nga topp ko lan la. damaa leb mooy bi. damaa leb damaa bëgg a fay. dangaa leb koo leb ñan nga leb ba bëgg a fay. damaa leb foofu nit ñu bari ñaata nit nga lekk gum ci xaymal ñu ñaata nit nga lekk. yow mi dëmm bi ñaata nit nga lekk. li ma lekk xamu xaw ma ko sax. dafa bari depuis ñaata at yaa ngi lekk. ëpp na fukki at. ëpp na fukki at yaa ngi lekk. waa sama doom bu góor bi maa ko lekk. sa doom bu góor bi nu mu tudd. Alseyni Ba. Alseyni Ba. astafurla. waaw kan. Alassane. Alassane. Alassane maa ko lekk. Alassane naka. Alassane Ba. Alassane Ba nan nga ko lekkee. foog mu leer mbokk yi. si tànk yi laa jàpp. waaw di tànk yi di neewi waaw waaw. ma lekk ko. nga nga lekk ko. waaw. Mhm. ma lekk tànk yi. nga lekk tànk yi. waaw waaw. mu mu entré hôpital. mu entré hôpital. waaw mu sonn. mu sonn. waaw ma lekk ko. nga lekk ko. waaw ba nga koy lekk yow rek yaa ko lekk wala dafa am ñoo àndal lekk ko. man kese la woon. mbokk yi gis ngeen wax naa la dëmm gis nga ndeysaan leer na ma ne Alassane Ba amoon na njëriñ ci moom Alassane Ba est-ce que amaloon na la njëriñ. kooku nit yàlla la. ndeysaan gis nga nit yàlla la kooku nit yàlla la. gaañoo. ndeysaan mu ca fajar. Mhm. dafa jàng alxuraan nag. waaw. xale bii. waaw maa ko yar ba muy nekk xale. nee na xale dem taxañi. waaw kii nangu na xiif sama nangu na mar. waaw kii xale bii war nga këpp dañ ko xamul. waaw def ci moom. waaw moo dem Makka. waaw sans moo boot doomam bi dem ca millata Ibrahima ca ba. mu boot doomam bu kawe ba. moo dem Makka. moo dem Makka. sans kii la yàlla bëgg. macha allah ay malayka yëpp dañ koy sabal bis bu set. léegi yow. léegi yow léegi yow ma ne nit ku mel noonu lan nga koy toppee bëgg ko lekk. xanaa bon rek. léegi yow lan mooy sa problème bu lu tax nga bëgg ko lekk yow. xanaa bon rek iñaan yow nga jur yaayam. benn nga ko yaayam weeru koor gi def ko génnee. ana yaayam moom. yaayam moom yi dañoo tekki doom ju am mandarga. Ah. boobu bareetul ci àdduna ndaw sii moo mu ragal yàlla te du mooy kii du wax lu dul dëgg léegi déglu ma kii du fen kii du njaaloo kii du sàcc may ma tuuti laa ilaha illallah ma déglu ma rasulullah yow moo tax nga topp xale bu jigéen bi nga wax bon bon kese yow ñaata nga am am naa téeméeri at ak ak juróom yow yaa jur yaayam maa jur yaayam waa te ngeen dëmm bi nee na moo jur yaayam léegi yow lu tax boo ma gisee ngay raprapi rek lan moo tax foo ma gis ngay raprapi. tax ñeme leen ma. def ci yow moo la yàlla def ci man. <laughs> nga xale bi bu la gisee. day tàggoog sa gam ndax kii xale bi xamul lu bon daf la bëgg. su la gisee. day mel ni doom bu mu jur. waaw waxtu ci biir néeg mu ne mu la sow. man doom bi ma jur sax est-ce kii dafa nekk sa kër. kër gi dafa set wecc léegi da koy defar suba ak kii moo am yéene ci yow. léegi waxuma loolu mane xale bu jigéen bi yaayam xam na ne yow dëmm nga wala. xam yaayam mus ko xam. yaayam musul xam ne. yaayam mus ko xam yow musul xam ne yow. yow mii maamu xale bi dëmm nga musu ko xam. yaa sama yaayam musu ko xam. musu ko xam yaayam def may toppatoo. waaye musu ko xam. musu ko xam. musu ko xam naa neewu ko ndox. nga ne noo tudd yow. Aysatu boobu. Aysatu boobu. waaw dëkk. jaabare yaare jaabare yaare waaw falla Guinée Conakry Guinée Conakry wan san wan san jaabare yaare waaw falaa dëkk macha allah dégg ngeen waaw nijaayam da ko ah. génnee kër ga ah. nijaayam moo ko génnee kër ga ak yaayam waaw macha allah day xeex rakkam yi rek. mbokk yi dégg ngeen dëmm bi mooy wax noonu dëmm bi mooy jëfaru bu dee am ngeen question yéen journalistes yi ngeen am loo leen di koy laaj rapidement pour ñun ñi xam defe naa ne barki dem Demba Ndiaye expliqué naa yi ni mel euh, wax naa ko saa su ne ñu ngi comprendre dëmm nu muy def macha allah dëmm day topp ku baax dëm day topp ku am avenir calculer nga jur doom ba pare lekk ko loolu dëmm rek moo ko mën nga jur doom bañ ko loolu dëmm rek moo ko mën euh, waaye bu nekkee yaay ju baax ñi nga xamante ne set na bu juree doomam daf koy bëgg mais boo bañee sa doom rek yaa quelque sos xëy na yow setoo ku setul rek mooy bañ doomam gis ngeen euh, lu dëmm bi wax nee na nag xale bu jigéen bi sëtam la daf ko bëgg a lekk aha nee na nag yàgg na lekk ay nit mënul ma ñaata personne la lekk maanaam yow sa wàllu pouvoir booy soppaleku yan façon soppaleku ngay mel gaynde laay nekk gaynde xam nga gaynde ci dëmm ñooñu ay ñooy ponkali gaynde laay nekk gaynde ci dëmm ponkal yi la ponkal yi ñooy nekk gaynde gaynde nekk ay gaynde ñooy nekk ay céeli ah gaynde ngay nekk gaynde laay nekk waaw yow lan moo nga topp ko rek ne da koy lekk bon rek xale bii jiñ na ma teraanga maa ko yar depuis mu nekk xale yaa ko yar bu mu nekkee xale musta bëgg bon waaw kii moo genti gis na rasulillahi ba waaw ak allahu akbar. waaw gént ko mu gis ko. waaw ca neegu ñax ba. waaw léegi xale bii moo baax après léegi nga bëgg ko lekk yow. waaw ma bëgg ko lekk xam nga ne yow wala kaana nga de. wala kaana la. wala kaana pire tekkiw ma dara. tekkiw ma dara. waaw tekkiw ma dara. waaw léegi yow. Mm. Euh, nga ne yaa lekk sa doom bu góor. waaw ak kan nga lekk ku la jege. kooku rek laa lekk. ah kooku lekk naa ko. kooku nga lekk ak kan. Ah. ak kan nga lekk. bari na ñu ma lekk waaye fàtte naa leen. fàtte naa ñoo ñëpp. fàtte nga leen. waaw. waaw papaay xale bi tamit maa ko lekk. papaay xale ban. xale bi. kan kii. waaw papam dafa gaañu. papam gaañu na. yaa ko lekk. nitu aljanna ba. nee na moo lekk aussi papaay xale bu góor bi mbokk yi gis ngeen papam nu mu tuddoon. Abdou Karim Ba. Abdou Karim Ba. nitu yàlla ba. yow yaa ko lekk. waaw xale ba moom la doon ci rafet xol. ak kan aussi nga lekkaat. Abdou Karim Ba ba nga koy lekk noo ko lekkee. dama ka boole ak agresseurs yi. da nga ko boole agresseurs yi waaw ñu agressé ko. waaw waaw. gis ngeen dañu am seen xam-xam yi bon mun nañ la boole ci ak oto sax nga assident wala ñu boole la ak xaj wala agresseur wala nangam pour nga nga daal di am foofu soog bu bon après ñu daal di jaare noonu lekk la. parce que nu ne mun mënee nañ ko maanaam pour ñu lekk la nekkul dañuy ne huub rek lekk la mun nañ la booleeg dara nga feebar wala boole la benn affaire ñu lekk la maanaam nu ne lañ la mën a coobee. fu ne lañ la mën a jaaree am na ñu bëri ñi nga xamante ne ci oto yi sax lañ leen lekkee dañ lay booleeg oto nga def soog boo defee soog ñu daal di lay coob dëmm dafa garaaw dëmm nag nit njaay lay doon am na ñoo xamante dañuy rax ak nit ñi fekk ay dëmm lañu du ñëpp nag ñooy mun a xàmmee nit kii dëmm la am du dëmm dee da ngay nekk ak nit sax fekk dëmm la yow doo ci xam dara. maa lekk yaa lekk gis nga bu yàggee dina wax yaa lekk sa jëkkër. waaw ah, ak kan nga lekk sa jë kon yow lekk nga sa doom lekk nga sa jëkkër lekk nga sa goro ak kan dèjà ñi ko gën a jege rek laa bëgg mu wax ñu ak sama sët ak sa sët ban nu mu tudd sa sa sa jëkkër yow nu mu tudd sa turandoo sama turandoo turandoo ak nu mu neexee nga waaw maa ko lekk Aysatu la tudd sama turandoo la maa ko lekk. ab doomaraam la. mais yow say wax nga ne 105 ans nga am. allo xam nga ne nag genre yi dañuy gudd fan nag. 115 ans ñii yàlla du leen yàkkamti nag. téeméeri at gis nga genre ñi moo bëgg gudd fan. mane ñii di ko ma ne man kay doomawuma ak kenn ma ne genre ñii dañuy gudd fan dëmm dëmm yi dañuy gudd fan lool ñi ñu baax ñi ñoo dul yàgg. mais ñit ñu bon ñi suñu borom day mel ni daleen leen di fàtte pour bëgg rek ñu gën a def njombe keroog àllaaxira mu duma leen calculeel kii lu mu lekk ci ci ay nit ah nga ne yow yaa lekk sa borom kër sa borom kër noo ko lekkee dama ko def feebar da ko def feebar gis nga wax naa la buñ lay lekk dañ lay teg benn nattu benn feebar wala teg la dara ngay daw ak feebar boobu ba faatu maanaam dañ lay lekk fekk yaa ngi dund. xale bi dama kaa fatt. kii nee na xale bi daf koo fatt. kii dafa sonn ci àddunam. nee na dafa sonn kii métit bu mu am moo ko yàq nii melul nii de. kii jonga ma piir la. kii melul nii de. kii ko gis def koy ragal. ndax feebar bi def ko changé carrément. waaw kii góor gu ko mës gis. bëgg na ko tubaab yi dañuy ñëw ci kër jëkkëram. ndax teraanga. xale bu jigéen bi. waaw jëkkëram nag ki mu takk. ndaw sa dafa bàyyi leer ba. dem takk lëndëm. waaw xale bu jigéen bii leer yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ci moom. waa léegi yow léegi yow moom moom xale bu jigéen bi euh, moom xale bu jigéen bi yow rek yaa ko topp wala am na ñoo àndal wala lan lan ak lan moo topp xale bu jigéen bi. man kese maa ko topp. yow kese yaa ko topp. man kese maa ko topp. waaye kenn xamu woon. kenn xamu ko woon. yaayam sax naaneewu ko ndox. Hmm. fan la mbir mi feeñee fan la mbir mi tojee. fii ci kër Moulay Sow. fii la feeñ àdduna nag. waaw ni yow amagul. Hmm, lu tax. <laughs> yow yàlla moo dooleel. Hmm. <laughs> sa yaay moo baax. léegi yow sa problème nga ne kenn musula jàpp. kenn musuma jàpp. kenn musula gis. kenn musuma gis. fii lañ la jàppee ci kër gi. fii waaw lañ ma jàppee ci kër gi. ngay jëfaru di wax. waaw may jëfaru di wax ngay wax ne dëmm nga. waaw may léegi yow. Euh, dëmm bi nga dekk. da nga euh, maanaam yow seef nga ci wala apprenti nga ci wala lan nga ci. pour ñu xam foog ñu mu leer parce que dëmm yi nekk gaynde yi ay ay chef lañu. chef la nag. waaw chef nga. yow ñaata bëñ nga am ñaata daan nga am ñaata kii garaat nga am pour ñu nga expliquer ñuy seetaan. fukki bëñ. fukki bëñ. ci dëmm bi. waaw waaw dégg nga nee na am na fukki bëñ am na ñu am benn bëñ. ñaari bëñ. ñetti bëñ. ñeent moom fukk la am. Mhm. léegi yow. Mhm. da yor say surga wala da nga yor sa équipe wala da nga yor say taalibe wala damaa yor sama équipe nag équipe nga yor waaw sa équipe ñoom ñaata lañu dix personnes dix personnes waaw mun nga ñu wax tur bi kenn ku ne salimatu gada balla salimatu gada balla gada balla fu mu dëkk jaabare yaare jaabare yaare waaw ak kan ak salmatu donso kooku deena salmatu donso ko deena lan moo ko rey yàlla moo ko rey. yàlla moo ko rey. waaw ak kon kon dëmm day dee. Mhm. waaw ak kan. ak Fatimatu. Fatimatu. waaw Fatimatu mi dëkk ci wetu jàkk ba ci kaw. wetu jàkk ba ca kaw. waaw dañ koy tam foofu ndax saa dëmm dañ koy tam. foofu dañ ko fay tam. waaw moom fu mu nekk Guinée. jaabare yaare même village jaabare yaare. waaw ci dëkk bi. kon waa jaabare yaare yéen a ngi ñuy dégg waaw waxal. ak fan. waaw ak fan. ak kan tame. ak wuuri xawaa wuuri xawaa moom tamit fu mu dëkk gàccaangi la dëkk gàccaangi waaw moom tamit dëmm la dëmm la waa wuuri xawaa waaw dëmm la ak kan moom sax moo lekk jëkkëram moom wuuri xawaa moom moo lekk dëkk jëkkëram moo lekk jëkkëram waa waaw ak kan moo ko gàccaangi umu gàccaali moom tamit kooku tamit dëmm la umu gàccaali moom tamit dëmm la moo lekk doomam ba moo lekk doomam waaw mu def ko ci accident ah gis ngeen sànq wax naa leen accident la ko def nee ci accident la ko def mu lekk ko ak kan tamit si accident la ko def waaw ak kan xam nga yi dafa baax pour ñuy seetaan mën a xam ak kan ñooñu la ñoo des na parce que da ne fukk lañu waaw ak ñan ñi nga xamante ne ñoo bokk sa équipe di lekk ay nit waaw des na ñetti nit ak kan ak Fatimatu Gadabal la fa kooku wax nga ko walla kooku xale bi xamu ko. ah xale bi xamu ko. xale ko de. léegi ak kantame mbokk dëmb baa ngi wax yéen a ngi dégg dëmm baa ngi jëfaru. ak Umar Soodo. ah Umar Soodo. mooy kan. gadabal la. kon waa Umar Soodo gadabal la. mu um, nee na Umar Soodo nee na foofu tamit kooku tamit dëmb la. dëmm piir la. dëmm piir la ak kan. waaw kan. ak Salimatu Wansang. Salimatu Wansang. waaw kooku tamit xale bi xamu ko. nee na Salimatu Wansang kooku tamit dëmm la. kon daal ñooñu. xale bi xamu ko de xale bi xamu ko ñooñu seen équipe lañu. waaw est-ce que ñooñu dinañ la jàppale pour nga lekk xale bi walla. waaw bëggoon nañ ma koo jàppale pour ma lekk xale bi. waaw waaye xale bi. waaw <laughs> yàlla la àndal. dafa ànd ak yàlla lii day julli rek. waaw day sabbal yàlla guddi. waaw day sabbal yàlla bëccëg. waaw kii. waaw. <laughs> kii moo tax yàlla def ci moom doom ju barke ja waaw alaaji ba waaw alseyni doomam bi alseyni la tudd alseyni alseyni doomam bu góor moom kese la am ci doom bu góor alseyni la tudd waaye keroog mooy duma sax noonu yaayam kii sëy ba mhm. dañ ko dóor ba tëj bopp bi xale bu jigéen bi. kii goro ba moo ko def. goro bi goro bi dafa feebar mu ngi fii si kër jëkkëram. waaw léegi ñu génnee ko kër ga. Mhm. xale bi di tumuranke mhm. góor gu ko woo ci njaalo mhm. ko woo ci lu bon mu saaga la. kii day toog ay fan du lekk. kii di fanaan ci mbedd ndax ba njaaloo. moo tax yàlla dénk ko doom ju barke ja. kii moo gis sëñ Tuubaa ci gént. kii moo gis Alaaji Maali ci gént. kii moo gis millata Ibrahima ci gént. Mhm. kii moo gis rasulillahi. macha allah rasulillahi moo ko uuf. léegi yow. kii kenn mënu ci moom dara. léegi ku mel ni kon dee ku mel nii nag yow dëmm bi nga xamante ne ab wala kaana nga. wala saw xale bi dugg ca sa kër nga ko est-ce nga ma ne déglu ma. xamoo xale bi yow ma ne déglu ma. yow mi nga xamante ne ab dëmm nga. ah. waaw lu tax nga bëgg lekk ki nga xamante ne sa sët la. lan moo tax yéen lan moo tax ngeen di lekk nit ñi lu tax mënoo leen lekk mbaam yaa ngi fi yées rek fas yaa ngi fi xaj yaa ngi fi golo yaa ngi fi waaw yaayam bu ko gisee waaw bu ko déggee waaw dina xam ah dina xam <laughs> mbaar yaayam jéemaloo ko dara moom xale bu jigéen bi yaayam tànk yi day metti maam jëmoo fa toog ah, yow yaa fa toog waaw tànk yi day metti waaw man maa fa toog yaa toog ci tànk yi waaw maa tànk ba keroog bañ koy génnee xale bi dafa jaaxle mm-hmm. ndax bëggul njaaloo waaw fu muy dem kër gi mu luwee noonu amul courant amul ndox. Mm-hmm. day toog ay fan du lekk. Mm-hmm. waaye borom sutura la. Mm-hmm. kii du xawi sutura doomu jàmbur. du xawi sutura nit. kii boo leen xamoon li ci ne mun la xamoo xale bi. léegi yow. xale bi moom dëmm la wala du dëmm. xale bi du dëmm. waaw loolu tamit foog ñu laaj mu leeral. xale bi xamul dara bu dul jaamu yàlla. waaw loolu foog nit ñi xam ko. kii. naka lay nekkee doomu yàlla mu jege yàlla. naka lay nekkee dama mu am doom ju barke. doom bi dafa am man xale bi jéem a ko woon jàngal affaire dem mu wala waaye mu kenn xam ko mu la so weer nga ko. ma ne. doom ja dafa am mandarga ci ginnaaw ko mooy borom Amérique. waaw ma ne keroog mooy door day duma ay noonu yaayam yi day jënd kat kat dugal yaayam. macha allah dugal ko ci biir kër. léegi jëkkëram nag bu yeexee tuuti. dina am waa ju ñëw takk ko nag mu amal ko doom ju góor yi waa ji koy réewal kii day tukki day dem bitim réew. déglu ma. <laughs> xale bii moo baax yàlla dafa fay xale bi kii day dem bitim réew yow nii yaa ngi ci maa ngi koy yàq ci digg bopp laa dóor ma ne ko fële ca ginnaaw ko Guinée Conakry nan nga fa toogee kër yaayam buun yaa ngi ci kër yaayam buun waaw maa ngi fii ci kër yaayam nan nga toogee foofu buun mu ngi fii sama yaay mu ngi fii di sant yàlla nan nga toogee sama nijaay bi nekk Angleterre hmm. sama maam moo ko téye ba mu demee Angleterre boobu xale bi juddoogul maam bi moo ko téye léegi yow dëmm bi laa yaa ngi gine wala yaa ngi buun fii maa ngi buun fii ci kër yaayam ah, yaa ngi foofu nan nga fa toogee actuellement actuellement ni noo toogee buun damaa sonn fu mu ne ni doo nooy def nii actuellement maa ngi def ay manière fi ma toog yaa ngi toog nii def ay manière waa maa ngi jàkk maa ngi toog ca saal ba jàkkaarloo télé bi yaayam mu ngi may xool rek ah, mais instant bi nekkoo ah instant bi nekkoo maa ngi déedéet nekkuma ah yaa ngi may door door yu metti gis nga fu mu nekk ni dëmm baa ngi toog ci kër ga di def ay manière mais ñi mu toogal ñu comprendre ndeysaan waaye rakkam yi dañ koy xalaat fa instant nekk rakkam yi dañ koy xalaat mule mag gi da koy xalaat capturé nañ dëmm gis ngeen c'est grave dañ koy xalaat fan la nekk waaye xale bi ku ko laaj day ne yaayam nekku fi ndax bëggul kenn xamal ko dara mbokk yi gis ngeen kër gi moom fi ñëwee dafa ne kenn Alseni wax na ko mu ne sama yaay nekku fi kii dafa bëgg sutura moo tax mu wax Alseyni sama yaay nekku fa. mbokk yi dégg ngeen c'est bon eh léegi c'est <laughs> mbokk yi yéen a ngi dégg ñu ngi ci TMS TV yi moo baaxale bii moo jullite ànd ak général de Guinée le king of the king noppil mbokk yi gis ngeen li dëmm mu mel. defe naa ne seetaan ngeen vidéo yi saa su ne ñu jàpp fi dëmm mu wax ñu capturé ko lii nag xam-xam la ak baatin boo amul xam-xam munoo capturé ñii boo amul xam-xam munoo jàpp ñii ñun nag yàlla may nañu xam-xam. may nañu baatin ba bu ñu gisee dëmm dañ koy xam dañuy capturer dëmm di capturer jinne mais parfois dañuy génn gis nit ki ñu xam ne dëmm la duñ la lijjanti amuñu ak yow affaire macha allah waaye nag gis nga trop nit ki day waxal boppam moom nag jëfaru na moom moo dugg sëtam macha allah gis nga lu mu expliqué man nag dëmm munul ci man dara ndax nee naa leen ñu ma munoon rey rey nañ ma ba ma dee dem naa dëkk bi nga xamante ne dëkk bi yëpp ay dëmm lañu bu guddee dañuy aj dëkk bi wax naa la dem naa foofu. yeew leen ñoom ñëpp dugg ci dëkk bi wax naa ko man amul fu ma demul ci àdduna bi dëmm bu mu mënoon lekk lekk na ma bu yàgg waaye man mënuñu ma coob mënuñu ma dara waaw loolu loolu dama ko dee ci gént gi mu la saw xale bi ci gént gi waaw ma ne ko man la maamam xale bi nee na déedéet du sama maam ma ne ko man la maamam ci gént ga laa ko ko waxee xale ba nee na déedéet sama maam ak ni dëkk yi ni koy waxee dafa baax maa ko wax ci biir gént gi maa ko dee xale bi nga ne ko ma ne ko man la maa la topp waaye xale bi gomeewu ko dafa jox xaaju guddi toog. léegi lan moo tax nga wax sabal yàlla. lu tax nga wax waaw parce que dama xam ne téye nga ma ba pare. mbokk yi gis ngeen. mu la sow yaa garaaw. lu tax nga ne maa garaaw. <laughs> mu la sow musuma foogee ne sama àdduna dig ma jàpp. xale bii moo sonn mu la kii dafa muñ métit bu nekk ci moom attanu ko sax kii loolu loolu rek moo ko yàq. waaw dégg ngeen loolu. dëmm loolu kese kii jongo ma pire la. kii bu ma génnee ci moom day changé te jëkkër jaa ñëw takk ko dem bitim réew. jëkkëram bu yeexee tuuti mu perte. mbokk yi dégg ngeen kii day tukki kii mooy borom Amérique dëmm baa ngi wax <laughs> moo jëfaru di wax actuellement nag euh, dëmm mooy wax. dëmm mooy wax fu mu nekk dëmm bi nag mooy maamu xale bu jigéen bi moom lañu ñu capturé ruuxam muy wax. jëkkëram de koy dóor rek ndeysaan dañuy capturer ruuxu nit dañuy capturer ruuxu nit waay goro ba naa leen ko wax goro ba liggéey na ko def loolu nag xam-xam la ak baati loolu yàlla yàlla joxu ko kenn ci aduna bi ku dul man Thierno Moule bu ma neexee capturer ruuxu président bu ma neex capturer ruuxam muy wax bu ma neexee capturer ku ma neex loolu nag xam la loolu nag yàlla joxugu ko kenn ci kaw suuf ku dul man ni may capturer dëmm yi ñuy wax di capturer jinne di leen xëcc mun naa ko capturer ku ma neex lu ma la lu ma bëgg ma laaj la nga wax ma loolu nag xam-xam la loolu nag yàlla joxugu ko kenn ci kaw suuf kuy dox amul kenn ku ko fi yàlla jox ku dul man defe naa ne leer na waaw kay lii nag lii day wane ne preuve ci loolu macha allah waaw léegi nag macha allah am ngeen question. xoolal ca waaw waxal ca waxal question rek. ko def ci dama ko bëggoon laaj moom lan la yàqal xale bu jigéen bi lan nag lan la yàqal xale bu jigéen kii maa koy taxawaal maa koy def muy taxawaalu ci mbedd yi rek nee na mooy def muy taxawaalu ci mbedd maa koy def muy taxawaalu ci mbedd bi rek waaw te xale bi ndeysaan bu wàccee weekend def may yëram day yëkkati xaalisam bu liggéeyee may ma ko may la ko def may xoolee bot ñeewanteel parce que kii yàlla xool bi mu ko dénk defe naa àdduna wërngal képp ku mel ni xale bu jigéen bi amul moo tax te fekk yow yaa ngi ci kawam waaw te fekk maa ngi ci kawam xam nga ne booy wër doomaraam dëgg boo jàppee dëmb téel doomaraam dëgg mooy dëmm bu ñuy wax doomaraam pire teel dëmm parce que da wax naa la da koy bëgg da koy yërëm ndeysaan moo ngi si suuf tànk di la lekk dama ko liggéeyal kii xale bi dafay dem àll ba maa ko yar lii nag fii la nga déggee kër xalifa général day jëne Thierno Moule ma lu ne lu ne lu defal na ma ko ci àdduna xale bii ngeen di gis the king of the king teraanga bu nekk ji na ji na ma ko ci àdduna day day nëbb dara may ma sax bàyyi yaayam bi ko jur léegi yow yéen noo leen di lekkee nit nan ngay coobee nit nooy lekkee nit nooy lekkee nit gis nga maa ko fatt nii mun a tan mun ta nooy lu tax nga fatt ko kii dafa sonn cer na da nga koo fatt dama ko fatt mun ta nooy waaw kii mu ngi liggéey sa kër waaye dafa sonn lu tax nga fatt ko xale bii day bëgg dee faasaa liggéey waaye du ko mun waaye lu tax nga fatt ko laa wax cer na mu laay sow xale bi moo bëgg moo la bëgg rek xale bi dalaa bëgg nag mbokk yi gis ngeen ah, macha allah xale bi dalaa bëgg Thierno Moule Sow Thierno Moule ku ko bëgg rek gis nga lu nekk gis nga xale bi dafa seetaan ci vidéo Thierno Moule Sow gis ngeen Thierno Moule Sow daf ko seetaan vidéo maris la doon liggéey mu seetaan eh, vidéo Thierno Moule Sow waaye Moule Sow xale bi du nit moo ko fi indi de yàlla moo ko fi indi te boo ko fajee yàlla dina la defal daraja bu kawe parce que kii dafa ne dafa am daraja kii dafa jege yàlla ñun yàgg nañ faj ñu am ay daraja ñun dañoo am daraja ñun dañoo jege suñu borom ndax li ñuy def ni ku jegewul yàlla munu ko def ku amul daraja ku amul wilaay ci yàlla munul def li may def xale bi moo sonn li may def nii ku jege yàlla boo waxee yàlla nangu kooku mooy mën di def li yàlla du jox secret xale bi day taxaw rek secret secret maanaam secret yii ku ko jegewul ku ko jege rek la koy jox ku ko jege bu baax a baax xale bi lan koo lekk ko lekkee amoon na góor bu ko doon woo mu njaaloo góor gi fu mu ne xale bu góor bi daf ko bëggoon nu mu tudd addalaa la tudd waaw waaye xale ba waaw xale bu góor bi waaw xale bu jigéen bi dafa tëdd ba ci guddi waaw yàlla suñu borom woon ko waaw mu xale bu góor bi woo ko ba pare mu ne ko xam nga lal laa lay xamal man musuma njaaloo ci àdduna te nga maa bàyyi nga dem sa yoon ndax xale bu jigéen dafa yaakaar ne kooku daf ko bëggoon takk xale bu jigéen bi jëkkër rek la wër ci àddunaam hmm. te kii góor gu ko takk day tekki jëkkëram soudeur métallique armignon lay liggéey jëkkër ji ba mu ko takkee wërsëgam yëpp a ubbeeku waaye goraga moo ko liggéey moo ko def ci béy bu ñuul ba dëkk ba xale bu jigéen bi sax jour boobu dafa yéemu dafa yéemu ci yàlla keroog jë keroog xale bu jigéen dafa dem seeti ay doomam ci kër jëkkëram mère bi mu ne yàlla moo leen takkale mère bi waxul dëgg moo ko liggéey waaye doomam bi torox na. léegi moom mbaar kenn kenn du ko takk parce que xale bu jigéen bii ku ko toroxal yàlla kenn du ko bëgg a takk. yow maam ji nga bëgg nga coob kooku. déedéet man goro bi may wax. waaw goro bi man. waaw maa ko liggéey déddale ko ak jëkkëram. yow kan yaay wax ni. man Fatimatu Booye maay wax. yow Fatimatu Booye. waaw man tamit damaa feebar damaa ñëw fii waaye feebar bi du ma bàyyi de. Fatima Booye yow lan nga. man. laa tudd. yow lan nga. man tamit ah, kon ñaari dëmm ñooy wax. ma yow lanam nga. man gorom laa. Ah, yow tamit dëmm ga waaw. Ah, gorom laa. gorom nga yow foo dëkk eh, doko rapetel laa dëkk. doko rapetel xale bi damaa jéem ci moom ba sonn. Ah, nee na borom la moom tamit mooy wax ni bokkul ak maam ji instant bi Fatoumata Petere mooy wax moom tamit dëmm la Fatoumata Dokore Petere Fatoumata Dokore Petere man maay maa jur jëkkëram dëmm laa yaa jur jëkkër kan waa waa bi mu tàggoo nii maa ko jur ah yaa jur di maa ngi fi instant bi di faj waaye du ma ah, wér de jëkkëram boobu du dëmm jëkkëram dafa jullite moo ta xale bu jigéen bi ah, yow yaa jur yow yaay goroom yow tamit dëmm nga waaw bokkul ak maam ji. moo instant bi maam ji. pare na instant bi waxagul. maam bi pare na. léegi maam bi waxagul goro ñëw goro bi goro bi mooy wax nii d'abord. waaw goro bi mooy wax nii. kon gii goro bi nag tamit dëmm la. ah yow gorom nga. waaw. yow ñaata nit nga lekk. man ñi ma lekk bari na man tamit. Mhm. waaw waaye xale bi jigéen bi mun munaluma ko dara. ñaata bëñ nga yore yow. man juróom-ñaari bëñ laa yore. ah juróom-ñaari bañ. waaw waaye xale bi munaluma ko dara. munaloo ko dara parce que leer yonente bi moo nekk ci moom. nee na moom juróom-ñaari bañ la yor mënulu xale bi dara mbokk yi gis ngeen tey kon journée dëmm la journée de la dëmm macha allah kon gis ngeen euh, jànk bi macha allah maamam dëmm la gorom dëmm la kon nag c'est grave diggante ñooñu boo fa nekkee nag boo amul sens amoo ñaal rek dañ lay coob dañ lay coob c'est grave. xale bi yàlla moo ko woo mat moo tax kenn mënu koo lekk. ko répété ñaata at nga man ak maamam daanaka ñoo yem ay at rek. ah yéen a yem ay at. waa ñaata at exactement. sama at yi mënu koo xam màgget laa de tuuti rek. mag laa tuuti doxee bant ngay doxee wala. waa keroog ba xale ba ma demee dafa fekk may sëgg xale bu jigéen bi dafa ñëw keroog seeti ay doomam. waaye waxuma ko saa mu dugg ci néeg bi waaye xale bu jigéen bi lu mu am ñaaw njort rek da koy gis lu mu topp ay tànk mu gis ko xam nga li tax leeru yonente bi moo nekk ci moom. xale bi xamoon na ne yow dëmm nga wala. mus ko foogee. mus maamam bii di dëmm xa ngeen xamante bi def ko teral dëkk ba. yaa maamam bii nga xam ne dëmm la xamante ngeen. xamante nañu kay. ah kon da wala ku nekk day utal boppam. komplo wuñu. ku nekk da ngay xëccal sa bopp. waa ku nekk da ngay utal sa bopp. Ah, utal daal ngeen bëgg xool xale bi rek pour lekk ko noonu yéen ñëpp da ngeen programmé pour fayee ko bar wala da ngeen ko bëgg lekk ndax jariñoo. ndax leeral bi amul ku ni village su kii nee naa la yàlla suñu borom da kaa jege daf ko jege leeru yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax doom ja gisoo dafa am mandarga waaye yaa xam na doom ja moo tax buggul kenn xam ko même yaayam daal kii ay dëmm ñoo ko topp da ngeen loolu tey journée de la dëmm la macha mbokk yi defe naa ne nag lii lu yéeme la lu doy waar la saa su ne ngeen gis dëmm yi ñu leen di capturer ñuy jëfaru di wax defe naa ne léegi adduna bi yëpp ñoo ngi xam dëmm à cause de Thierno Moule ñoo ngi koy gën a leeral ñi ñi donte nañ dëmm sax mais dañ doon laam-laamee euh, dëmm yi di yàq xelu nit ñi léegi nag defe naa ne moom moo ngi wax kii nag usine dëmm la li ko topp ci dëmm dafa bari dégg nga ñoom ñëpp ñoo ko topp bëgg ko lekk bëgg ko faat bëgg ko faagaagal te nag ñi nga xamante ne goroom bi yaayu jëkkëram ak maamam. Alaaji Umar la jëkkëram tudd hmm? Umar la kenn gënu ko nag. jëkkër ji El Hadj Omar mu ngi fii dafa bëgg xale bu jigéen bi waaye dañ ko ko déddalee waaye ndaw sikki mu am dañuy tàggoo parce que xale bu jigéen bi baaxul mais xale bu jigéen bi nga dugg daal bi nga bëgg a lekk ni bugguma ko maa ko takkal kee waaye xale bu jigéen bi dem moo ko gën téeméer junni yoon nu raawuñu ah, xale bu jigéen bi toog moo gën kee moo leen gën foof kii nga xam ne dafa jóge yenant bi kii nga xam ne dafa jóge rasulullah kii moo dem ca tund ba bu doomam bi gis tund Ibrahima kii moo tëdd ba xaaju guddi yàlla wan ko rasulillahi. léegi yéen loo leen namm ci xale bu jigéen bi lan ngeen. namm dañ koy toroxal. dañ ko bëgg a toroxal parce que mënuñu ko lekk. ah ñoom kii dafay sabal yàlla. ñoom buñ la mënul lekk dañ lay toroxal yàqal la loo dugg mu yàq loo yaakaar mu tas def la ay problème ngay sonn kii dafay sabal yàlla. mbokk yi kon nag c'est grave. kii usine dëmm ñoo ko topp. waaw ah, macha allah comme ni ko sëñ bi waxee gis ngeen ñu gis ndaw si mi ngi noonu ñaari dëmm ñoo ko jot a jàpp ndax xam naa ne bu ñu continuer woon sax dina bari ay kii ñi ko topp ci ci ci dëmm macha allah dafa bari mu ngi nii gis nga bi mu commencé fee la commencé di yuuxu di di yuuxutul sëñ bi war nga ne da koo bëgg muy junni jin dëmm bi nga xam ne ne maam la maam la ci moom tëpp na téeméeri at yu tegal macha allah moo ko topp ak beneen dëmm bi nga xam ne nag goroom la kër gi mu doon séyee nga xam ne toroxal na ko sonnal na ko sonn boo xam ne ndax xam ne ne mënuñu ko lekk ndax xale bi dafa yor reer leer bi nga xam ne mooy leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa lu ñu xale bi dara bi mais duñ koy liñ ci jóg te mooy di ko toroxal sonnal ko bëgg xale bi di mooy di ko toroxal di ko def lu ne kilifa bu nekk nag mu gis ko ci gént ni ñu koy waxee ci saa su ne xalif général day jinne suñu waa ji macha allah borom kun fa yekkoon nii loo koy defee ci saa su ne yàlla lu mu joxoon yonent yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko lu ko ëpp muy capturé yi nga xam ne ne mooy jinne di capturé dëmm yi dëmm te dëmm bi mi ngi toog këram instant di def ay manière mais waa këram comprendre ñu li nga xam ne mooy xale général de dina mi ngi téye mi xëcc li nga xam ne mooy ruuxam ni ko fii taxaw muy wax macha allah nii xale baa ngi nii mu nekk xale bu sonn xale boo xam ne heure bu allah ceerno mu la saw di ñëw day daanu di yuuxu ñu bëri dañ yaakaaroon ne ne jënn bi la rek te dëmm bi mooy yuuxu noonu macha allah mi ngi noonu macha allah kon nag mbokku TMS TV yaakaar naa ne lii du fi gan jënd yeeg dëmb yi nga xam ne a chaque fois moom la xalif général di capturé mi ngi noonu kon nag dëmb mi dëmb yoo xam ne ñi nga bàyyeekoo ci Guinée benn village boo xam ne village bu doy waar boo xam ne ñu ngi nii dëmb yaa ngi noonu macha allah di wax di waxtu mu sànni ko safara ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kon xalif général yaakaar naa ñu bàyyee la kaddu gi. mun la soo moom a toroxal ci diggu àdduna. alors merci à nan laa la toroxalee. mun la soo yow rek ci àdduna. waaw donc vous rappelez juste que nous sommes avec le khalife général des djinns le roi de la médecine traditionnelle. ici à Cambérène donc en face euh, de la VDN 3 et en face euh, du terrain Diamono. Euh, cette demoiselle que vous voyez donc travailler dans la maison, mais depuis qu'elle est arrivée, elle, est, elle n'a cessé vraiment de tomber en syncope et de tomber en crise, de faire des gestes incroyables. Aujourd'hui, euh, donc, on a pu comprendre ce qui l'animait, ce qui l'a possédé. Il s'agissait juste de deux sorcières. Donc, la première est sa grand-mère et la deuxième est son gendre. Donc vous voyez, elle est possédée donc par ses sorcières. Donc la première qui est âgée de 115 ans et l'autre qui a presque le même âge est en train vraiment de détruire, de troubler la vie donc de cette euh, demoiselle, de cette dame qui était même mariée mais finalement qui s'est séparée avec son mari donc à cause de cette sorcière. Donc vous voyez, donc la sorcière est en train de la posséder. elle dit que cette demoiselle cette dame est une bonne dame elle n'a jamais fait quelque chose de mal elle n'a jamais fait d'adultère mais là elle est en train donc de vivre des moments difficiles donc à cause de, de cette sorcière qui est en train de détruire donc c'est ce qui se passe actuellement l'a si bien expliqué c'est une journée de sorcières donc deux sorcières qui possèdent cette demoiselle cette dame qui est euh, et qui sont en donc de détruire sa vie ladies and gents dear followers of TMS TV we are with the Khalif General of the Jinns the king of all the kings and you can see uh, this very lady who is just possessed by two witches and the first which uh, is uh, her grandmother the second one is her mother-in-law and these kind of witches are destroying her life you can see that even this lady was married but right now separated by her husband she's having uh, you children are living with her husband right now and yàlla suñu borom yëpp fay saabal xale bi. was saying that this very lady is a good one. she has never done something bad she has never done something bad with a man. but this uh, very lady you see is being you know in troubles thanks to because of this very witch who is destroying her life right now. you see then what the Khalif General was saying so this witch is trying to eat this very lady. but uh, you know the first witch cannot eat her. and the second one also cannot jinne yi ñoo koy sabbal cannot eat her that's why they are trying to destroy their lives so that's what is happening right now with the Khalif general of the jinns the king of all the kings who was explaining us you know how a person yow la ban kon dëmm yi des dëmm dem nañ kon jinne bi moo fi des. waaw ah, jinne bi moo fi des tay ah yow jinne noo def. waaw ko duggee. marché waranka laa ko duggee. mu waranka am bi fu mu doon sëyee. laa ko duggee. Eh, jinne bi da nga dëmm yi ko topp wala. waa dama xamanteeg dëmm bi. man dëmm moo la maamam bi. dëmm moo la yebal. waa maamu xale bi moo la dugal ci xale bi yow dëmm bi. waaw man kay moom musuma woon. xalaat ne sax dinaa def xale bi lu bon musuma xalaat ne dinaa def xale bi lu bon ah yow dem nga daal yow jënd daal mais maama moo la yónni dugal la waaw moo ma yónni mm. waaye man musuma bëgg toroxal xale bi ndax demaa xam li nekk ci xale bi damaa xam li nekk ci xale bi mm. waaw. léegi maamam nan la wax ne nga dugg xale ngelaw laa ko def. Mm. ngelaw laa ko def dugg ko. Mm-hmm. dugg ko ci digg bopp bi bi di yuuxu xale bi di yuuxu dem kër yaayam boot doomam ba doomam bu jigéen ba examen bi da koy am examen ren examen ren mun la saw mun la saw mun la saw la saw wuyu ma mun la saw examen bi waaw kon macha allah mu nekk lu doy waar xale bi nga xam ne ne macha allah gis nga jinne moo ko topp ak dëmm mu nekk maamam daal di koy yebal li nga xam ne ne mooy jinne bi macha allah mu nekkoon consultation fii kër xalif général mu nekk ñaari dëmm kii maamam bu jur yaayam ak goroom ki nga xam ne ne mooy yaayu jëkkëram macha allah daw ko topp boole ko beneen jinne boo xam ne ne Moussa tudd ñu topp ko fee ci marché waranka tamit macha allah mu nekk lu doy waar macha allah kon dañu nekk rek consultation léegi nag macha allah bu jëflantikoo sëriñ bi pour war a ak yooyu maanaam naa li ci des yëpp dinañ ko yeggale macha allah salaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatu comme Ngoné l'a expliqué donc dernièrement on a donc pu remarquer qu'il y avait un autre donc euh, euh comment dire esprit donc ce qu'on appelle djinn en wolof donc Djiné Moussa qui a été envoyé par la sorcière qui se trouve être la grand-mère de cette demoiselle vous voyez c'est incroyable ce qui se passe ici donc c'est Djiné Moussa donc en plus euh, d'être possédé par deux sorcières elle est possédée aussi par un djinn un esprit qui s'appelle Djiné Moussa ladies this spirit, this devil whose name is Musa, you know, apart from the two witches who are possessing her, we have also a witch whose name is, uh, you know, Jinne Musa right now. So that is what is happening right now with Thierno Moule Sow, the Khalif General of the Jinns in Cambérène, face to the video industry and face, you know, to the football ground of Jamono. So thanks for following us every time. Thanks being with us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. So we'll be coming back with you, uh, with this kind of, uh, you know, with this person to see see what will happen boobu nga tudd. Mhm. kan moo yabal jinne bi ci moom. waaw. man maa ko bi. yaa yaa yaa yabal jinne bi ci xale bu jigéen. mu topp def ko ngelaw. waaw Mhm. maa ko def ngelaw boobu mu ngi boot doomam bu jigéen bi taawam bi. waaw mu ngi jóge kër yaa këram këram fi muy sëyee. fu muy sëyee. waaw boobu jëkkër ji dafa luwe woon. waaw léegi mu ngi dem kër yaayam mu seeti yaayam parce que xale bi dafa bëgg yaayam. Mhm. fu mu julli day ñaanal yaayam. yàlla na leen xare àjjana yàlla na leen yàlla jéggal moo tax ci daraja yonente bi la yàlla jéggalee papam. dégg nee na. dafa bëgg a génne lu nekk ci biir biir bi waaw génne ko ah. ba ba muy génn ci kër gi. maa yëkkati 500 may ko ma ne ko paasal. kan maa ah, bon keroog yaayam ba mu ko dàqee ci biir kër gi. man maam ji maa ko may téeméer ma ne ko demal yaay dàq na la. test micro test. maa ko may téeméer. yaa ko may téeméer. waaw yaa ji nangul fanaan ci biir néeg ba ci kaw ci dëkkandoo yi la fanaan. léegi Badir waaw. léegi xaaral ñu jël kii Badir. Badir. nga ne lan. dafa am lu desoon li nga defoon ci biir bi. te waaw léegi kon génneel li desoon li nekk ci biir bi parce que kerew tuubaloon nañ ko ba génnee ko suñ taalibe la nee na dafa am lu desoon ci biir bi loolu la bëgg a génneewaat. kon Badira ngi noonu mbokk yi jinne bi moom lañ tuubaloon barki Demba Ndiaye nan laa ko tuddati woon sax. Badir Mule. waaw Badir Mule lañ ko tuddee woon waaw Badir Mule nee na dafa am lu desaatoon loolu la bëggoon génne sinon mun na ko feebar loo léegi joxal jëkkër bi mu expliqué ñu tuuti ci ci li ci ci li jinne bi wax ci lu waaw wa rahmatullahi taala te nga xamal ñi ñi ñaata jinne lañ génnee sa jabar d'abord maa leen di ziare ñaata jinne ak ñaata dem xalif général mhm. Badir mu le keroog bi ñu ko génnee noonu moom Badir mhm, mhm. après la lendemain su la commencé manifester wu quoi. ma ne ko yow mu ne ma man na Badir dafa lu ma des si biir bi. waa génneel te loolu laa bëgg génnee ma ne ko ah man ma waaw ma ne ko ngoon baax na man ma wool sëriñ bi wool sëriñ bi damaa sonn mhm. te dugaatuma ko pour des fi mhm. li fi des ci biir bi rek laa bëgg génne waaw waaw génneel kon kon Badir génneel kooku di wax noonu boroom këram la ñoom ñoo joge ba Espagne xam naa ne seen séjour yàggatul naa ne incha allahu yàggatul ñoom ñaanal leen ñu ñibbi fekk mu jeex parce que ñaata jinne lañ génnee ci moom d' abord. lépp ñaata la euh, lépp lépp day nekk vingt et vingt et un. Ah? dëmm yi ñaata lañ. fukk ah? euh, ñaari dëmm. Ah, ak ñeneen ñi daw. waaw mbokk yi gis ngeen badiir Badir Moule jinne la jinne bu mag la nag ci jinne yi keroog gis ngeen lu mu doon expliqué fii yëpp. kon léegi génneel Badir Moulé Badir est-ce que duma ko booleeg dëmm bi mu duma ko sax wala est-ce que duma ko booleeg dëmm bi mu duma ko tuuti Badir Badir Moulé jinne la jinne bu mag mbokk yi gis ngeen mbir maa ngi noonu jinne bi génnoon na mais dafa am lu desoon mu ne xaaral mu dugg ko pour génnee loolu ndax bu ko bàyyee ci biir bi da ko indil feebar parce que am na yu bëri yu nekkoon ci yaramam bi mais jinne bi tuub na taalibe la léegi gis nga ko léegi dafa bëgg a génne lu nekk ci biir bi ana kii kaa ñu may ko dara mu naan pour lu nekk ci biir bi génn dafa am lu desoon ñu may ko dara mu naan ñu foofu kaas nga tibb ci ci ci bi demal foofu waaw Badir jinne bu am doole la mbirum jinne yi moom yàltu léegi génnal li li des ci biir bi amuñu temps nag yana pas de temps kaas bi senn Badir am na lu des ci biir bi génnee ko am na lu des ci biir bi jox mu naan mbokk yi gis ngeen sang bi ni valir ko noonu dafa am lu desoon ci biir bi loolu la bëgg a génne Badira keroog moom lañ tuubaloon nee na dafa am lu des ci biir moo tax mu dugg pour bëgg ko génne benn yoon kon nag macha allah jox nañ ko garab bi mooy ndaal bi xam ngeen ne barigo bi ndaal la ay duwaaw ay ñaan laa fay def léegi nag pour li nekkoon ci biir bi li fa desoon pour mu deñ xam ngeen ne nag ñoom Espagne lañ jóge Espagne lañ jóge pour ñëw fii ñu faj leen macha allah defe naa ne ñoo ngi ci càppaandaw ga ñoo ngi ci ci li ñuy wax fin daanaka 21 jinne daanaka génn na ci moom ñaari dëmm yi moom dañoo daw ak ñeneen ñi nga xamante ne keroog bopp bi rek ci lañ daw macha allah. an kay utal dara mu gaaw mu gaaw mu gaaw mu gaaw mu gaaw dindi loolu gis ngeen garab bu mu naan bi lépp lu mu fekk ci biir bi aha mbokk yi gis ngeen loolu liggéey bi moo ngi nii gis nga ko noonu badir lépp lu nekk ci biir bi na génn gis ngeen ko aha bismillah jinna jàppale leen ko jinna jàppale leen ko li ne ci biir bi mu génn benn yoon jinne bi génn li ci biir bi yëpp na génn benn yoon macha allah mooy borom 21 jinne yi ñoom la ñu génnee 21 jinne ñoom ñoo bàyyeekoo ba Espagne waaw bismillah am na lu defoon ci biir bi. Mm-hmm. xam nga ne kii soxna si jinne yu bëri ñoo ko topp defe naa ne jinne yi ñoom ñoo rey papam aha ñoom papam ak yaayam n'est-ce pas hmm? papam ak yaayam yëpp jinne yi ko toppo ni ñoo ko rey jinne yi ma fi jàpp wax nañ ko nee nañ ñoo rey papam papam dafa jullite woon Arab Saoudi la nekkoon ñoo ko yóbbu Arab Saoudi bàyyi ko foofu pour mu soranteeg doomam ndax dafa noon ñaanal doomam léegi nag ñu bañ muy ñaanal doomam moo tax ñu ray ko kon nag xam ngeen ne lu doy waar la xam ngeen ne mbirum ñaan yombul de boo amul xam-xam boo ci duggee rek soo moytul nga doon nga doon seen sarax dëmm wala kaana baa ngi re nga ne dëmm moom du dara xam ngeen ne papam ndeysaan ak yayam waroon nañ fi toog gunge leen waaye gis nga jinne yi dañu bon xam nañ ne bu fi nekkee rek dinañ ko faat maanaam bu fi nekkee rek ñoom duñ ko munal dara moo tax ñu teel leen éliminer jëlee leen fi gis ngeen jëkkëram bi tamit ni ñu ko sonalee woon aha jëkkëram bi naar kaay dolli ko jëkkëram bi tamit ni ñu ko sonalee woon éliminer ko xam ngeen ne lii dafa garaaw lii nag xam nga ne macha allah lu yéeme la lu doy waar ñoom na Espagne la ñu bàyyee ko Espagne instant bi ñoo ngi ci cappaandaw ga jox instant bi ñoo ngi ci cappaandaw ga daanaka vingt et un ñaari dëmm kooku noonu mooy jëkkëram mooy tul fio bi kooku mooy jëkkëram mooy borom këram kooku mooy borom këram kooku moom mooy borom këram kooku mooy borom këram allah moom la jëmm dëmm yi ay ngelaw ak jabet ay feebar air ak lu ne macha allah xam ngeen ne mm, li moom fii rek aha Badir bismillah ji nga génneel li nekk ci biir bi yëpp nga daal di génn benn yoon nag mhm. vingt et un jinne ñaari dëmm nga ne lii lu bari la de ah ak ñi dëmm muy daw moom mi jëkkëram dañ ko naroon agressé sax gars yi ñoo ko sàkkaloon pexe nar ko agressé pour faat ko waaye gis nga aha bismillah jigéen mu bi mm-hmm. moo jëlam éponge bi fatt ko doomam bi mm-hmm. moo jël mu man maa jël éponge bi dugal ko ci ci bakkanu xale bu jigéen bi. joxaat ko. fatt ko. joxaat ko. jox ko jox ko jox ko. jox ko. mooy ne liggéey bi dafa metti de. Hmm? nit ki bu ñëwee dang koy topp ko topp ko ba mu li ne ci moom yëpp dañ xam nga ne yombul de. Hmm. jox ko mu naan. mbokk yi yéen a ngi gis moo koy jox muy naan lépp lu nekk ci biir bi da koy toj lépp lu nekk ci biir bi da koy yàq léegi nag su ko defee mu daal di génn. waaw macha allah comme ni ngeen ko gisee xale bu jigéen baa ngi noonu ak jinne bi bi nga xam ne na mooy Badir mooy jinne bi nga xam ne moom lañu mujjee jàpp ci moom macha allah mu dellu si waat ndax bëgg li nga xam ne na yu bon yi nga xam ne moom la defoon ci biiru xale bi moom lay génnee noonu macha allah ñu gis xalif général daal di ci ndaalam li nga xam ne ne macha allah xam ak baatin dëgg la bi mu ko joxee jinne bi macha allah mi ngi jéem di fexe di génne li nga xam ne moo nekkoon ci ndaw ci ci ndaw si macha allah mu nekk jinne bi nga xam ne tuubal nañ ko dugg na ci diine l'islam nekk taalibe xalif général xam ne na ndaw si kat am na lu mu defoon ci biiram macha allah kon nag war na mën a ñëw pour génnee loolu waaw mi ngi noonu macha allah ma ne ko macha allah mi ngi noonu macha allah ki nga xam ne la tamit mooy mooy moom mooy jigéenam ñëw teewee lii macha allah muy ajaratu nday seex macha allah mi ngi noonu jinne baa ngi noonu di génn ñu jàpp ci moom 21 jinne ak ñaari dëmm dëmm yoo xam ne pexeel nañu jëkkëram pexeel nañ ko macha allah ñu ngi noonu jóge depuis Espagne daal di ñëw fii macha allah waaw ci kanamu nday seex jàll tubaari kàlla macha allah sama tante ju baax jooju grand borom grand théâtre jigéenu Alaaji mu la Sow baax gën riis nekk fekk grand théâtre ah ci kanamu bàjjanu ki nga xam ne ne mooy prince Moule macha allah ci kanamu jigéenam macha allah mi ngi génnee jinne bii nga xam ne mooy Badir moo jëloon lu bon yu bari ngelaw yeeg bon yooyu yëpp roofoon ko ci biiru ndaw si bu ma tuubee ñu génnee ko macha allah mu daal di ñëw dellu siwaat xam ne ne fu mu toll nii def lu waratu ko di génnee li nga xam ne ne mu dellu siwaat di génnee li nga xam ne moom la defoon ci biiru ndaw si moom la ci defoon yu bon yi nga xam ne moom la fi defoon di ay lor moom la nekk noonu di génnee macha allah xalif général des jinne ñu gis jinne bi ngi nii macha allah ak jëkkëram kon ñii ñoo jóge woon Espagne macha allah ndaw saa ngi noonu di tàpp biir bi daal di sonn daal di coono xam nga ne jinne li ñuy def ci doomu aadama yi dafa bari xam nga ne lii ay lor la loo xam ne tey ji yow mi ko fi defoon tey ji pour mu génn sax yaakaar naa ne jafe na nga war parce que moom mi defoon foofu yu bon moom rek moo mun a xam point yi waaw moo tax mu dellu si pour bëgg a dindi li nekk ci biir bi ndax instant bi jinne bi taalibe la Badir taalibe la Badir waaw nañ ko léegi suñ taalibe la léegi nag Badir mu gaaw jinna ya bismillah lépp lu nekk ci biir bi na génn rapidement y en a pas temps mu gaaw mu gaaw nga génne lépp après nga daal di génn nag aha vingt et un jinne mbir mi day day jéeme day jël temps waaye nag dina génn macha allah mu ngi koy génne su ko génne rek day daal di rocceekuwaat ndànk génn mhm. dëmm baa ngi ceppi cëppi noonu si ngeen noonu dëmm baa ngi cëppi cëppi dañoo bëgg a ay mbokkam macha allah dañ bëgg a xam ay mbokkam aussi c'est important xale bu jigéen bi moo ngi noonu di cëppi cëppi. maamam mooy dëmm bi ko topp léegi nag buggoon nañ xam ci ay mbokkam ak yooyu tamit ak ay seen mbokk seen famille daal c'est important ñoo ngi def recherche pour mën a woo seen mbokk yeeg yooyu. Mm-hmm. waaw macha allah mi ngi noonu gis ngeen. nee na ñoo ngi dëkk fan buuna. Ah? waaw ñu ngi buun ñu dëkk fan ci buun gis nga birki ba birki woon ci kaw. waaw. xale bu jigéen bii di Badir génnal génnal. xale bu jigéen bii di doomam bu jigéen bi ummu. maam jamoo ajji birki ba ci kaw dóor xale bi pour mu dee mu entré hôpital yaay ji ba mu ñëwee defa jooy mu ne sama doom ji day dee sama ginnaaw sama yaay génnee na ma ci kër gi man ñi ma am di maa ko def maa ajji birki ba ci kaw dóor xale ba xale bi dafa rafet macha allah dafa am bët macha allah kii li mu jur yëpp a baax li mu jur yëpp ay tekki moo tax nga bëgg koo lekk daal. waaw moo tax ma bëgg koo lekk. yow ñaata nit nga lekk. man li ma lekk xamatuma ko. Hmm. gaynde bu mag laa. xale bu jigéen bi sax démb gaynde la gént. Hmm. mu dàqa ji la woon ci biir gént gi. waa yow maamam yaay soppale gaynde di ko tiital ko gaynde bi di ko dàq. Hmm. waa yow nit nga lekk ci seen famille. Ah. waxuma la ñeneen ñi ci seen famille. lii ko lekk. sa doom bi ah. Ah. sama doom bi. alasana alasana maa lekk alasana maa lekk waa nit yàlla la jour ajjuma la gaañoo sax tax yéen dëmm ku leen di jëriñ rek ngeen di kii waa ñun dañoo xam li nekk ci nit dañoo xam li nekk ci nit waaw soo amul xam-xam doo ko xam hmm, kon leen di jëriñ ngeen lekk soxla waaw waaw xale bii defal na ma teranga di yëkkati xaalis may ma maa ko yar dama ko doon door guddi pour mu jàng pour mu topp ma xale bi déedéet waaye xale bi dafa demoon ba am xel ñaar saa si man def ma ragalee woon xel dafa demoon ba am xel ñaar ndax dafa am yàlla li mu def ci moom benn jour ma gunge ko muy saw guddi yàgg na nag de léegi toog rek commencé def affaire mu ne maam maam xale ba tiit boobu xaay xaajagul am jëkkër ñu daal ñëw ñu xool Badir mi ngi noonu di tourné ci ki nga xam ne mooy sëriñam xalif général des jinne waaw Badir bu mu defee ay kurtu kartam ba pare mi ngi ñëwaat taalibe Thierno Moule saw Badir macha allah tuubaloon nañ ko. Mhm. nga am lu ñu jëflante ak moom. Mhm. daal ko tuubal mu nangu nag doon suñu taalibe. Mhm. Mhm. waaye avant loolu. dafa doon sonal xale bu jigéen di ko yàqal. di yàqal moom nag di ko yàqal lu ne. waaye xam nga nag jinne boo ñëwee ci kër gi foog ñu tuubal la. ba da ngay nekk taalibe. léegi moom tuub na fu mu nekk nii nga ne lan ba kii ah lan la wax. nee na loo wax. dégg nga doole fi mu toll nii. amul doole waaw. non néew doole. waaw nañ ko roofaat doole léegi comme niñ daan def rek ba ci suñ poos yi jox ko roof ko doole. mbokk yi waaw jinne bi Badir léegi dèjà lu nekk si biir bi yëpp dañ na ah mu ne waaw léegi nag dindil génneel roccil roccil roccil lépp moom moo fa miine woon ay affaire am yi bon léegi roccil lépp léegi xaaral waaw roccil li nekkoon ci biir bi yëpp rocci ko courant yi bu ñëwoon dañ doon def affaire bi benn yoon. bu ñëwoon kay ñu def ma ne bu dee ñëw ñu dem kër bi ñëw na. électricité bi nekk ci biir bi génne lu nekk ci biir bi génne lu nekk ci biir bi. génn li nekk ci biir bi génn li nekk ci biir bi génn li nekk ci biir bi jàppale ko mu jóg actuellement nit ki moo nekk noonu ba dir yëkkati ko nga ne kii dam bi yàgg na lekk mun a uw ko xamul xew fi mu ne nii yàgg coob la demul kon ngoone actuellement nit ki moo nekk ni mhm. xew waaw moom xamul li xew. Mhm. Euh, Badir def na liggéeyam génn na lu muy génne ba génn. waaw mhm. jàppale ko kooku. jàppalam la jëkkër ji kon gis nga. Euh, yéen ñu suivre ba léegi sur la TMS TV di télé bi feeñal lépp lu nëbbu lamboo njëriñ kon ngeen gis ni. il n'a rien compris. dara. macha allah kon xam ngeen ni lii mayu yàlla kese kese la ngoone ci kaw suuf muy ay karim yoo xam ni. tey am na sëriñ bu mag bu ñu seeti woon doon defa moom émission waaye boo déggee témoignage bi mu def ci sëriñ bi nga xam ni sëriñ bi kenn du moom il est unique dans la terre te sëriñ boobu da koy seetaan guddi ak bëccëg waaw sëriñ bu yàlla may la waaye mu nangu ko ni kii li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf donc defe naa ni loolu c'est important donc euh, ni rek lañ koy faral di defee xam naa léegi ci kanam également daal ñu leen commenter 20 yi nga xam ne sëriñ bi dans un temps moom la génnee pour suukaru koor bi nga xam ni moom la war a jébbal jaamu yàlla askan yi euh, jox ko également euh, mosquée yi nga xam ni ñoo nekk fii aussi ci dakaar ak euh, ni nga xam ni moom noonu la koy defee at mu ne weeru koor gu ne defe naa depuis presque 2008 2009 ba léegi mi ngi koy def kon léegi am na fukki at ak ñett chaque année mu génnee ay millions di ko jox jaamu yàlla jàmm jaamu yàlla yi. donc mu nekk loo xam ne lu am solo la ci kanam aussi daañu leen ci defal ay commentaires yu am solo ci teewaayu soxna ndey Cheikh nekk jigéenu sëriñ bi euh, ak euh, suñu yeneen naataango yi nga xam ni ñu ngi nekk fii Ngóone. waaw macha allah comme ni nga ko waxee Moustapha gis nga jinne bi moom à chaque fois bu génnee ci yow ndaw si day ruus parce que du xam du comprendre macha allah mu nekk jinne bi nga xam ne ne moo nekkoon Badir daal di koy toppoon keroog sëñ bi daal di koy tuubal macha allah comme euh, taalibe sëriñ bi la mu dellu siwaat dem jël ay bagages yu bëri yoo xam ne moom moo ko defoon ci ndaw si kon moo xamoon fi mu nekk moom la ñëwaat doon ko génnee macha allah ngeen gis ko mu toog noonu ak borom këram macha allah ñi daal di jóge fi nga xam ne ne mooy Espagne yaakaar naa ne waa Témis TV kenn dootu leen présent konteeti macha allah waaw bu ñu paree ñu daal di jub si li nga xam ne nag lu am solo macha allah li nga xam ne ne du yëngal jamono macha allah ak sëriñ bi yëngal jamono macha allah ci kanam bu jigéenam bu sell bi macha allah ajaratu nday Cheikh Diallo borom grand théâtre tubaarikàlla macha allah mooy chéri la reine macha allah bàjjunu prince Moulé macha allah sama waa ji borom kun fa yàqu ni ñu koy waxee ci saa su ne daal di ay millions. macha allah ay millions yu millions te sànq ba tey na ne déedéet nañ génne ñu jox ko ñu ne ko déedéet teraanga dañ koy weer ndax teraanga àdduna bët la macha allah daal di woo ki nga xam ne mooy mët saw di géwalam macha allah daal di woo tamit suñu tataa nday Cheikh mi tubaarikàlla macha allah nga xam ne kenn la ci alaaji Thierno Moule Sow macha allah muy baax kat li ma koy wax ci saa su ne nee naa ko bu la neexoon yàlla def la milliardaire nga tegle tegle say tànk toog di xaar ndax ku yor ay jinne ñàkkoo dara lu yàlla joxoon yarante yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko ki nga xam ne na mooy xalif général des rois roi médecine traditionnelle du monde macha allah yegu yëgu ci diisu ji defu ci dara mu génnee nag 20 million 20 millions du ay caaxaan tubaari kàlla macha allah 20 millions la génnee teg ko ci table ne à tout moment nag mën na dem prolongation ndax sama yaram day tàng ci saa su mo moo borom kun fayakun mooy borom loxo ci poos mooy borom sañ-say mooy borom jasneeri tubaari kàlla macha allah mooy borom villa yi mooy borom voiture yi tubaari kàlla macha allah suñu waa ji kenn du moom. moom nag la jël nag fas yéene léegi nag dina jàkkaarloo te buñ jàkkaarloo dina neex dina metti ndax fi ñuy jàkkaarloo yëf fi day wàcc ba zéro kenn bañee fi suñu waajaa ngi nii nee naa la oto bi ci kanam la ñuy corné bi ci ginnaaw kenn du ko corné tubaarikàlla macha allah doomu ajaratu mariama camara baa ngi nii sëtu segolon baa ngi nii sëtu yoro tengalaak yoro tengalaak nii maa tengalaa tubaarikàlla macha allah sama waa ji nee naa la yow ñi nga doon fekkoo leen fi tubaarikàlla macha allah le mara bien préparé sponsorisé par allah allahu la doyloo tubaarikàlla macha allah te allahu ko doyloo ci saa su ne dina wan boppam te yàlla da ko wan boppam moo tax nag li mu joxoon yonent yàlla Souleymane dafa dellu si jox ko lu ko raw tubaarikàlla macha allah muy duma jinne yi di leen tuubal di leen dugal ci diine l'islam kon nag suy waaj mooy borom kun fa yakun bàyyi prince mu léegi ni doomu ajaratu Mariama Kamara mu sell mi Mariama mu demoon moo dellu si tubaarikàlla macha allah suñu waajaa ngi nii courant du pile oto bi ci kanam la ñuy corne bi ci ginnaaw kenn du ko corne APS baa baa ngi nii ku mën da ngay dawal dem ku mënul da ngay toog waajaa ngi nii tubaarikàlla macha allah nee naa alaaji alaaji ceerno mu la saw dafa ma ne ñaari potu meew ngay jël vidé ko lu moroomu benn maas benn moroom bu traditionnel du sa morom da ngay jël ñaari potu meew ku koy teste sànni ko ci escalier nga xool ne bi bu fees dell ak xam moo naan dégg toog waaye bi nga xam ne ne moo amul dara mooy bëri bëri bruit ñooy xottu potu meewu ñoo wër di nax saxa nag suñu waa ji kenn du moom baatim baa ngi fi xam-xam baa ngi fi teraanga baa ngi fi lépp a ngi fi ba tax na nag ci kanamu jigéenam tubaarikàlla macha allah la def 20 millions Moustapha kon nag tey yaakaar naa ci kanam fii ah Moustapha Ngéwale si na yëngu de ndax dama nar a périer dama nar a périer di repris tim sama sëriñ bi di ko bàkk di ko lu baax génne leen ma rek si kanam xoolal géwal rek laay doon Moustapha li tey du yomb. tey moom du yomb kon euh, sëñ bi ñu ngi lay delloo kàddu gi euh, di la jox sa wàccuwaay. macha allah sëñ Moustapha man la Moussa Ciss euh, di am kontaan ak mbégte te am boo xam te ne xaw ma fu mu yem di jël lépp nag di nga jëmm ju tedd ji ndaxte wax dëgg yàlla ñaari fan laa jëflanteeg moom ma nekk Espagne mu jox may garab. sees ji na génn sama soxna. te duma nalaw samay bët ma ko may sama bàmmeel laa taxaw defaluma ko promotion ndaxte yàllaa ko defal promotion te tungu ne du teew ñuy nataan li ma xam laay témoin du ma témoin lu ma xamul. ñaari fan la soxna ci sangu suuru sees jinne génne daw ak ñaari dëmm yaakaar naa ne baatin dëgg mooy loolu te bi ma fi ñëwee gis ngeen li fi xew léegi rek find na lépp jinne boo xamante ne ni moo nekkoon ci yaay nit ki ñaata at nekk dëkk ci kër gi mooy njabootam mujj ci doomam dem ba ca kër ga wax ak man si sama jëmu ji xew ji na ma man génn woon naa mais dama dugaat ndax dafa am liggéey yu ma bàyyi ci biiram ngoon yaakaar naa ne dëgg dëgg nag loolu mooy baatin ma ne ku la sut de ko woowe njool mi te taal bu yàlla taal waaye saw te ñu sànni mata rek mu gën a boy noppale da ngay teel a nangu ñi ñi jàmbat nag doo seen maas ndaxte ñooñu dañoo bëri si buree lan fa bàyyi rek toppandoo da ngay toppandoo sa maas kula la nee naa doota woowe njool mi mën a bàyyi presse dal da leen tim ci kaw bëgg bëgg dal di nangu nangu jël na cere ku bañ mën a allahu la àndal Muhammad mooy weeru waayam mën a bàyyi presse mu le billaahi ma ne soos nga ci mburu ku la soosul du dem yeneen yonenti yàlla Muhammad sama xol bi yaa ko taal ndaxte jëmm ji jëm ji ma ne bañ bañ nangu ndaxte nangu daa jël cere ku bañ fii moom boo nekkul géwél sax boo nekk géwél dafa neex macha allah lii de morceau bu bees la moom lii moom ngoone kooku nag dañ koy préparé rek incha allah sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu bi jërëjëf kooku Espagne lañ jógee moom mooy jëkkëru euh, ndaw si xale bu jigéen bi Espagne lañ jógee fi lañ ma woo ndeysaan jabaram nag jinne def koo sonal ko sonal sonal jëkkër ji indi leen ay jafe-jafe yu bari sax foofu laa commencé woon capturer benn jinne bi jinne bi nee na maanaam foog mu ñëw fii rek fii laay mën a jëflante ak moom commencé woon naa ko capturer sama téléphone bi euh, di di ko sonal mu yàq réseau bi jinne bi ci boppam di yàq réseau bi ba mënuñu mënuñu gisante après nag ci lañ mu ne ma sëriñ bi daal bàyyil ma dagg billet bu famille bi yëpp ñëw noonu la def dagg billet maanaam bu famille bi yëpp ñu ñëw Sénégal te defe naa ne ba ñu ñëwee wuñ ko foofu noonu d'abord ba ñu ba ma leen joxee garab yi rek ne leen nañu commencé en attendant ñuy ñëw macha allahu 16 jinne génn na ci moom ñaari dëmm daw ba mu ñëwee fii tamit gis nga génne nañ fii ay jinne yu bari sax plus de cinq jinne xawma waaw ak lu bëpp day nekk vingt et un jinne macha allah xam naa ne nag ci càppaandaw gi la ñu nekk daanaka ci ci tëj ko la ñu bëgg a nekk ni xam naa ne dañuy vérifier at yaram bi rek bu dee am na lu ci des ñu génne ko ñu doog a ñibbi kon nag macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi moom it ku baax la vraiment. dafa tëj liggéeyam bàyyi léppam jóge ba Espagne ànd ak njabootam ñëw parce que jinne yi dañuy ruube dañuy yàq te jinne yi yàgg nañ topp xale bu jigéen bi jinne bi ma génnee léegi nii sax moom depuis yaayu xale bu jigéen bi la toppoon ci kër gi ñu dëkk foofu la jinne bi dëkkoon ak njabootam kon jinne bi moo mag moo mag maanaam yaayu xale bu jigéen moo mag ay maamu xale bu jigéen bi mooy Badir génnoon na mais dafa am lu desoon ci biir bi li nga xamante ne loolu la defoon mu ne xaaral mu dugg mun ko génne macha allah parce que tuub na nekk na taalibe macha allah kon nag mbirum jinne daal moo ngi noonu ñu ñaa ngi ciy gën a yeew bu baax a baax ñi ñaa ngi suivre vidéo yi ñii dañoo dagg billet uniquement ngir ngir man jóge Espagne dara indiwu leen fi lu dul man suñu paree ak man dañuy ñibbi léegi nag ñoo ngi ci cappaandaw ga incha allah xam naa ne bientôt rek ñu ñaanal leen fekk ne pare nañ après ñu daal di dellu. macha allah defe naa ne ñoom lool kese moo leen fi indi Espagne ak Dakar pour faju pour ñibbi macha allah. macha allah defe naa ni euh, kaddu yooyu am na solo jóge ci le xalif général di ji ceex na Moule Sow kon gis ngeen ci suba ba léegi ñu ngi ànd ak sëriñ bi euh, defe naa ni gars yi gars yi gars yi ndekki nañ gars yi añ nañ gars yi naan nañ ataaye waaye sëriñ bi defe naa mi ngi toog fi mu toog rek ba ba léegi ne ci waar wi kon defe naa ni. dañ koy gën a ñaanalaat bu baax a baax bàyyee ko ak yàlla suñu borom kon euh, suñu mbokku internet yi ak téléspectateurs yi da ngeen di teg seen loxo ba ci kanam ñu daal di ñëwaat sur la TMS TV.